maa ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax amaat naa kontaante ak mbégte bu baax a baax ni ma ko faral di def ak uh, sëriñ sépp tey nag ñu fas yéene dalal kii di docteur Mouhamadou Watt ñu war a waxtaane ci lépp loo xam ne jëm na ci ñaan ak paj ñu jëmale ko ci jaam yàlla yi nga xam ne saa su nekk ñu ngi koy seet si am loo xam ne bëgg nañ koo sàkku ci moom loo xam ne tawféex na jëm ci seen uh, yaram uh, dañuy bàyyi mu nuyoo ko mbokk askan bi. waaw sëñ bi ñu ngi fay di dellu nuyoo dila la kontaane di la jërëjëfal di la ñaana yàlla jàmm salaama tawfiix du nuyu sa àndaale di nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ni ñoo ñuy déglu ci biir réew mi ak biti réew di leen dalal jàmm ci kër gi di leen ne bismillah. Mhm. jërëjëf euh, docteur Mouhamadou Wade ñu ngi lay fay bu baax amaat naa kontaan ak mbégte bu baax a baax tey nag euh, fi may tàmbalee mën naa ne defagut euh, benn jour ci kii bi amoon démb ci benn waxtaan boo xam ne émission bu amoon ci benn mën naa ne télévision la nag kan la kii di Ndella Madior am kàddu yoo xam ne wax na ko wax yoo xamante ñu bëri ñu ngi ci waxtaanee di koy ngawte ngawtee ana lool bi nga ko déggee lan moo ci doon sare correction lan nga ci àddu waaw bala ñoo xuus laaj boobu ñu naan rabbi shrah li sadri mm-hmm. wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yàgg nañ ko fee wax waaye ñu tegtale ko nit ñi ñu xam rabbi shrah li sadri mu ne yàlla nanga nga woyafal li nga xam ni moo ëmb ci dënn bi ndax wax yombul te dafa diis bu ko defee mu ne shrah sadri wa yi am na nanga yombal sama mbir wa am amri waxlul ugdatan na nga feccanti am pas-pas ci sama làmmin mu bañ a tarxiis bañ a gàkk ma mën a wax kooku yónnante yàlla Muusa moo ko yàlla bi ko yàlla yónnee ci Firawna mu ne ko yónni naa la ci Firawna demal nga wax ko sama yóbbante mu ne yàlla sama làmmin dafa takk mu ne ko ah mu ñaan-ñaan bi nag yàlla oyofal ko làmmin gi Mm-hmm. te ñaan bii ma la wax nii faj naa ci koo xam ni làmmiñam dafa takk bi ma ko ko liggéeyalee mm-hmm. bi mu demee waa këram dañ ko ne waayu mm-hmm. lu xew yow sa làmmiñ bi léegi dafa sedd dafa leer xale buy doog a juddu boo xam ni sax euh, dem na ba commencé tollu wax waxam yéex wala làmmiñ bi takk wala nga dem ba nekk mag ndeysaan lu ruslu ba nekk kilifa wala paa wala nekk fenn booy wax ak nit ñi sa làmmiñ takk Mm. wala booy wax ak nit ñi nga mel ni koo xam ne ñun pël luñ koy waxee ñondo mooy koo xam ni buy wax day mel ni bakkan lay waxee mm-hmm. waa ñaan boobu gaaw na ci torop secret la bu wër def nañ ko defaat ko ndax ñun suñu jëmmi bopp suñu làmmiñ dafa takkoon mais yaakaar naa ni macha allah bu ñu waxee dana gën a leer ci nit ñi waaw loolu am na def nañ ko mm-hmm. te lépp lu ñuy wax mm-hmm. lu ñu jëf la te lu wër la te alxuraan la génnul alxuraan yonente yàlla Moussa moo ñaana loolu yàlla yàlla def làmbin bi set bi mu demee ci firawn waaye mu ne ko boole naa la ak sa frère Harun mhm. mu waxal la itam bu ko defee loolu am na solo ci secret boobu rabbi shrah li sadri wa wax lu wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bu ko defee yàlla yombalal ñu wax ji def dégg-dégg ci ñañuy déglu actualité bi nga ñëw muy wàllu <laughs> Ndella Madior juuf waaw li nga ci wax mhm. a ah, ni ngeen ko déggee lañ ko déggee itam waaye nekk na lu doy waar jàpp nañ ni daal dérapé na mhm. waaw ndax émission moom lu toll ni télé nga wax wax ju mel noonu ah, ah, jàpp nañ ni daal ah, rëccale na mhm. ndax wax jooju mënoon na ñàkk ndax wax na ngay nekkee ci sa biir néegu sëy yaakaar naa ne kooku mënoon na des ci moom dong waaye nag comme xas na ba wax itam ah lu dul ñu ñaawlu ko ñaawlu nañ wax ji ndax ay wax ju ne lañ mën a waxee fu ne surtout nag ci mbooloo wala ci ñëpp di la déglu ba bitim réew waaw loolu mën tarkal mu mel ni bi journaliste bi sampe question am rek ca la mel ni ku euh, tàggoog sagoom ndax dafa mel ni ku pëccëti ku am loo xam ne moo koy wax loo ndax lan su demee banaan man euh, góor dëgg góor dëgg moo ma mën a dékku comme niñ koy waxee góor gu mënut bu mënut laalante man mun bu ma jege xoolal ci maanaam wax jooju yow doon kilifa. non wax ju ñaaw wax jooju moom ñaaw na lool wax dëgg yàlla surtout jóge ci moom. Mhm. ci koo xam ne da nga newoon kilifa nga wala danga nga newoon da nga amoon ambition politique wala ambition sax nekk première femme présidente ci Sénégal. Mhm. amoon na ambition boobu. wala lesbienne biñ ko doon jiiñ moo indi yenn wax yi lépp du lu rafet ci deru kilifa. waaw bu ko defee nag yàgg naa fee wax kàddu naan moom nit luñ la waxal fukk rek benn ba xëy na yaa nga ca. <laughs> waaw ndax wolof jaay moom la mu léeb lu ne. Mhm. mag ñi am na fu ñu ko teg bu ko defee daal mooy tandiku baax na torop waaw itam xam nooy waxe ak looy wax ak fan nga koy waxee bu mhm. ko defee loolu jàng nañ ko ci charia xam tamit ñan nga koy waxal ndax wax léeg la nga wax ñu dagg yóbbu bu ko defee lañ ci soxla lañ yóbbu fekk la nga yéene woon mën na bañ a doon loolu bu ko defee daal wax jooju jigéen la xëy na tolluwaayam la waaw bu ko defee nag ñun bëri na ci ay taalibe yoo xam ne ci fànn woowu dañ ñuy jàmbat mhm. problème yooyu ñu koy am ak seen soxna yi maanaam soxna yi di leen laaj bés bu set ñun suñu taalib dañ la naan jox leen ko rek ndax am na mbir moo xam ne buñ ko liggéeyee nga am ko. ma la mais dégg nga li mu wax. <laughs> maanaam loo xam ne sëy bi moom chaque jour mën na koo def moom da ci sonn. waaw ku dul góor mënoo mën mën mënta nekk ak waaw bu doon suñu. taalibe bu set doon suñu taalibe daal. waaw xam nañ ni moom mooy daw. looy wax lii. waaw ndax am na ci mbir yoo xam ne yàlla moo wax ar rijaalun qawwaamuuna ala nisaa mu ne man ma jël góor kàttanal ko ci kaw jigéen féetale ko ci moom kon bu fekkente ni ku jigéen ki dawul ku góor ki bu dee mat le na sëkk hmm. ci baatin ci wàllu secret ku jigéen ki moo koy daw ndax góor mën na denc ñeenti soxna góor hmm. mën na denc ñeenti soxna te ñeenti soxna yooyu mu denc bés bu set dana aaye bu aaye mën na joxe aayam te du ko wàññi dara loolu yàlla moo ko dëxëñ ci biir góor waaye bu fekkee da ngaa nekk góoru jabar hmm. mu lay laaj. Mhm. ak wax yi ak rumeur yi ak li nga gëm def ko sa biir bopp naan man daal kii daf maa sonal. Mhm. kii daal daf may jeexal kii man xam naa ne léegi mu ray ma. Mhm. kooku ñun taalibe woo nañ ba tàyyi ñu ne ko secret bi ñu la defal. jox ko bu la laajee. waaye daf may mujj woon naan ma sëñ bi de bi ñu demee ba yàgg. course ca départ ba soxna si gaawoon na loolu waaye arrivé bi a ah, ñun ñoo gagné de ndax soxna si da leen di mujj di daw. jërëjëf acca ndax góor dafa am secret bu yàlla def ci moom. bu xasee ba yegg niveau boobu. Mhm. li may wax nii nag ñi am ñaar ñetti jabar ñoo ko xam. du ki am benn jabar de. Mhm. du ki ñuy wax mu ne damaa sonn damaa teyal damay nelaw. déedéet waxuma kooku waxuma ak kooku. am na solo ñi am soxna yu bëri ñoom xam nañu li may wax. Mhm. bu ñu yeggee ci étape boobu mën nañu ànd ak seen ñeenti soxna te du leen wàññi dara. ndax dañuy xas ba ubbeeku. Mhm. <laughs> jërëjëf acca am na solo acca ñu dugg nag euh, ne coow njëkkanteeg waxtu wi ndax xam naa léegi ñu xoj ñu tàmbaleeguñu mais dañoo xaw a yàgg foofu ci actualité bi acca damay dellusiwaat euh, ci liñ naan seet baatu seet bëgg naa nga dellusi ci bu baax baax ak nan la docteur waat di seete ba nit ñi di koy rang di naan ko seetal ma ndax yàlla may na la ci tawfeex ñu dellusi ci. waaw wàllu seet bi moom comme nañ ko daa waxee ñu fàttali ñun la ñuy def muy science suprême islamique. Mhm. science yi nga xam ne ñoo féete ci càppaandool ci mbooleem xeetu xam-xam ci wàllu ñaanukaay yàlla ci wàllu lislaam ñaari anam yoo xam ne ñoo ci gën a ràññeeku muy wàllu listaxaara bi nga xam ne da nga koy fanaano muy seetu baatin mhm. beneen bi di seetu xam-xam muy seetu zaaxir da koy tomb mooy ramli ñaari yooyu dañ koy def bu baax mhm. mu am yeneen xeetu seet yoo xam ne mën nañ ko fee lim mhm. ndax ay wàllu biddéew dañ koy xool wàllu tabiya dañ koy xool wàllu rawxaan dañ koy xool ak chiffre pair yi mufradaat ak muzawijaat mhm. ba ci lawhul xayaat ak mamaat yooyu yëpp ay xeetu seet la mhm. muy général loolu dañ koy def tarkalla mhm. jërëjëf acca dama naan coow dugg ci liñ naan paj duñ ne paj nag seen xel de jëm ci euh, en général maanaam nit ki ci boppam ndax nit ki ci boppam bëri na tawat yoo xam ne ñu ngi gàllankoor ci kawam ci mën naa ne fépp du ma ne fépp nag lépp luy metti ci nit ki bëggoon naa ñu del si ci yan nga ci seppi ñu waxtaane ci tey waaw wàllu feebar yi moom doomu aadama muy ci bachariya wàllu yaram mm-hmm. am nañ ci ay ñaan ñaan yoo xam ni sax général boo xam ne dafay faxas mboolem xeetu jàngoro yi mu am loo xam ne nag ci wàllu bopp buy metti la wala biir buy metti yooyu soriwul ci ay sirlu xuruuf lañ koy def fay mbir mi nga jëfandikoo ko benn yoon mbir mi sedd mhm. moo am ci yeneen yoo xam ni faj à distance la wàllu ndigg yu metti bëri na ci woo mhm. ñu moccal leen ko yàlla may leen tawféex mhm. ndax bëri waa na ñoo xam ni dañuy xaaral nit ki ay sangat vingt jours vingt et un jours wala lu ko ëpp ñun suñu mbir amul loolu lan moo tax doo def maanaam cangat yooyu nit ñi di def loolu jaru ko ndax ñaan bu nangu fa yàlla moo gën a gaaw ngay xaaral nit ki ci sangat vingt trente jours wala quarante jours wala lu ko imagine mm-hmm. nit ki am soxlaam bu jàmp tey tey tey nga war ko ko liggéeyal nga koy xaarloo quarante jours waaw ñun du ñuy def loolu ñun li ñuy def lépp al ajla la mooy ci saas si lañ koy mm-hmm. liggéey asa atan assa atan kooku ay ismullah alazam la ay secret la baatin la xam nga mbind mm-hmm. jox nit ñaan zahir la loolu la nit ñi war a xam sëriñ zahir da ngay bind rek ay aaya di bind rek ay ñaan ndax xam nga ni faw nga def lii ak lii nit ki jëfandikoo ko mu gis lii loolu ci zaahir la mhm. te xam-xam zaahir la mooy li ma doon wax ci xeetu ram lii ak xam-xam yi ngay jàng ba ci wàllu lasraar mhm. mais xam-xamu baatin moo ko man mhm. num ko man <laughs> waaw maa ngi yor micro bi fi mu toll nii di wax te wax ji di jàll fële te baati na ko def waaw ni noonu tubaab bi ni mu liggéeyee wax naa benn client téléphone. mu ma mhm. sëñ bi man daal jaaxal nga ma. ne yow yàlla def na da nekk jeune. Mhm. ba pare ay mag yoo xam ne béjjaaw na ñi ngi fi dañ ñuy xaarloo vingt jours trente jours te yow dag ñu naan ci saa si wala fii ak trois jours ndax man li ci néew li ci gën a bëri bëri ci sama liggéey. Mhm. ci wàllu ñaan trois jours la. muy riyaada xalwa juróom-ñaari fan bu ma la nee danaa la ko defal maa ngi fen ndax aw ma jot bi mhm. wa ñeen fukki guddi bu ma la waxee dama la koy defal maa ngi fen ndax aw ma jot bi sama client yëpp ñu ngi may déglu amu ci kenn ku may ne dinaa la xalwal sept jours tarkala am na solo bu ma lay liggéeyal ci riyaada ñetti fan la mhm. ma liggéey li may liggéey nga gis résultat amul xaar ba suba loolu baatin la ndax loolu fa ñu toog la ñuy jël turu yàlla man da allahu bihi ajabta ku ci ñaan yàlla yàlla nangu mhm. man saala allahu bihi aatayta yàlla may la ma ne ko sëñ bi mu ne ma ah, man de jaaxal nga ma ne ko téléphone bi ma yor. Mhm. di wax ak yow. Mhm. micro bi sax am na buum waaye téléphone bi ma ci buum boo xam ne fa nga nekk Amérique la jóge ñëw ci man. Mhm. te maa ngi wax ngay dégg ngay wax may dégg. bu neexee sax ñu vidéo nga gis ma. loolu kay bu la jaaxalee ci tubaab bi xanaa yàlla war la gën a mën a jaaxal yàllaa ko gën a gaaw. <laughs> ñu ngi woon ci lépp lu bokk ci ponk paj damay dugg ci ñaan nag du ma nee ñaan mënuma dëx kii yëpp daam yu ma ci seppi ndax bëri na mais dañu tàmbali ci liñ naan ubbeeku ak wërsëg mbirum kaaraange ñu ñëw ci yooyu. waaw wàllu kubbeeku. ci mhm. araf yi ba tey secret araf yi mbind. Mhm. loolu mbind la. moom ay ñaanu zaahir. danga koy bind ay araf la nga nu nga ko jox nit mu sàngatu ko nga boole ko kànnaar tijji ko mhm. jox ko jaabi bu la neexee nga denc ko mhm. ko ubbeeku na ba faw te kan dootu ko mën a tëj kooku mhm. zaahir la mais am na ci baatin loo xam ne dañ koy liggéey tijji la aajul sax ñu jox la dara am na ci baatin loo xam ne dañuy dàgg turu yàlla dugal la ci ñaanal la yàlla ubbi say buntu wërsëg ndi sa wàllu biddéew bari na ci ñoo xam ne am nañ wërsëg lool mais seen biddéew dafay xaw a maanaam placement bi du baax moo tax seen mbir dafay bëri coono te njëriñ gi du bëri maanaam li ñu war a am du bëri loolu dañ koy def ba pare mën nañ la jox ñot di wërsëg mm-hmm. secret boobu noonu buñ la ko joxee ba soobee yàlla sa wërsëg moom dana tege say loxo loolu lu wër acca ñu ñëw ci lu bokk ndax loolu lépp waxtaane nañ ko dañuy dellusiwaat ci këyit ak maanaam ñi nga xam ne ñu ngi wutam xëy mu di liggéey te mu jafe leen mm-hmm. waaw xam nga wàllu këyit mm-hmm. yow nga nekk ba États-Unis wala Italie nga woo ma wax ma rek turi laa turu fi ngay jëlee préfecture bi mhm. ban xeetu kayit la asile la wala mhm. séjour ban la ci mhm. étudiant la wala travailleur turi lañ soxla aajul ñu yonne la dara tur yàlla bi la ñuy dagg jël sa tur boole ko tur kayit yi nga soxla ñu làqarti ko liggéey ko boole ko ko ñaan ba nangu nga dem ñu jox la kooku xam nga aajul ñu lay xaarloo wala di la tàlloo ay kayit Mhm. am na ci yoo xam ne bu ci nit duggee shirk la. Mhm. jël billet xaalis nga lakk ko. di ko def mhm. ci saafara di ko sangu wala ñu ne wutal kayit nga lakk ko def ko ci saafara ay quarante jours boo ko defee di nga am kayit. yooyu ay mbiru baatin yoo xam ay mbiru zaahir la du baatin yoo xamante ni. wàllu shirk bu yàggee de ci laale ndax benn waaye nee na ma ndeysaan benn mason maa ngi doon defar benn kër ma waa ji indi saako xaalis <laughs> fu ñu gas fu ne mën a def ci ñaar fukk def ci ñeent fukk ma ne ko kii yàq na xaalis bi waroon na koo saraxe loolu dafa xaraam ñaan daal wóolul yàlla mhm. bi ma ci waxtaan ak benn waaye mu ne xëy na gaa yi ñoo fa yeggul rek waaye yegguñu fa mhm. mais boo fa yeggee du aajo nga bind ñun dañoo romb foofu bind nii ak yooyu dañ koo romb loolu zaahir la jar tarkal jërëjëf aja <laughs> damay euh, ñëw nag delsi ci yeneen jafe-jafe yi <laughs> mooy ñi nga xam ne bëgg nañoo am doom mais da leen di jafe mm-hmm. mu di mun naa ne ci góor ñi mën na ci jigéen ñi mm-hmm. ak ñi bëgg am maanaam li di soxna mu jafe leen ñu ñëw ci ponk yooyu waaw xam nga comme ni ma waxee ba tey wàllu mm-hmm. am doom am na ci loo xam ni kooku faj la Mhm. waa lu faj nag foog mu am lu zaaxire nga jëfandikoo ko maanaam tey ji ñu am na secret boo xam ne ci nen lañ koy def xam nga nen ginaar xam nga pondeuse la day wasin rek ginaaru pondeuse yi machine yi mhm. heure bu ne day jur ay nen rek gars yi di jaay mhm. waaw bu boobaa moom mun la liggéey ci secret boobu bu soobee yàlla wasit moom danga ko def <laughs> am na ci beneen boo xam ne tamit ginaar la ginaar bi ci boppam la ñuy togg boole ko ci wàllu faj nga jëfandikoo ko sa sa sa borom kër loolu yéen ñaar koy bokk ndax am na ci loo xam ne faj la ci ku góor ki am loo xam ne faj la ko ci jigéen ki loolu faju zahir la mhm. mu am yeneen xeet yoo xam ne baatin la yooyu nag dañ koy ñaan yàlla may la mu am loo xam ne danga koy liggéey tur yàlla la jox la nga denc mhm. boo ko dencee bu soobee yàlla doo génn àddina mukk fala budda minhu laa wax te loo njaboot danga ko denc mu am beneen boo xam ne tamit mhm. wàllu ba tey jaaro la waaw bu fekkee koo xam ne ku góor ki wala ku jigéen ki mhm. yaramam dafa fertile munul am doom kooku baatin la boo takkee jaar bi roof ko rek mhm. keroog sa yaram activer wu na te incha allah da nga njaboot tarkal kon loolu tawféex la ñi ko amut rek nañ jéem a gisante kii di docteur Mouhamadou Wade moom ñaan yu leen ci defal ñu tawféexe ci seen euh, lépp loo xam ne jëm na ci ñoom damay dugg ci beneen ponk mu di xëccoo mhm. ak liñ naan noob ak noot foog naa ñaar yooyu xanaa di nga ñu ko mën a distinguer tey mu leer ci jaamu yàlla yi duñ fa dañuy dugg ci liñ naan bayre aussi aw xam nga alxuraan dafa mm-hmm. boo xam ni dafa lewet karhan mooy bu forcé mm-hmm. ñaar yooyu am na boo xam bëggee xëccoo dara mën nga ko forcé mais bu fekkee da nga bëgg tam mu dikkal la am na loo xam ne da koy lewetal ba mu lewet nag dañ koy nooyal ba mu nooy la yalla waxoon wa al nan al xadid li daawuda mm-hmm. nee na nooyal naa ak weñ nu mu dëgëree weñ nga xam ni manaafi a kasiran linnaasi mu ne njëriñ gu rëy la ci doomu aadama mhm. ndax moo defar oto defar avion yi defar bato yi mhm. waaye dama ko nooyalal Daawuda ba da ciy liggéey lépp lu bëgg waaw mhm. te kon loolu nag diggante bu ñagas dañ koy nooyal bëgg soxna ñu nooyal ko bëgg euh, xëccoo dara nag bu dee dañ koo bëgg a mu ñëw ñu nooyal ko waaye bu de forcé la moom yaa koy jël de Mhm. noot ak. Euh, waaw mm, noot moom am na ci loo xam ni wàllu xaxaru la am na ñu ko fi xam. Mhm. mais du ma digle xaxaru xaxaru dafa dafa am loo xam ni. Mhm. dafay gaañ moo tax bëriwul luñ koy bëgg di noote nit ñi. da ngay wut loo xam ni day nal wala muy mu saxir nga xam ni loo xam ni dafay xaw a maa ngi baaxee tur yi sax dafay xaw a ànd ak tàggat goo xam ni. daal du gaañaate daal man loolu laa gën a euh, taamu incha allah ci aajo. boo ko defee rek. wala lonk gi. Mhm. bu dee am nga soxna booy bëgg. buñ ko ci dugalee moom dana nekk soxna te dana fanaan sa ginnaaw incha allah wor ci am itam. waaw loolu am na. acca bayre bi ngay def ñu dellusiwaat. waaw bayre yi ba tey am na ci loo xam ne maa ko fi daan leeral loo xam ne dafay neexal sam yaram. Mhm. kooku wàllu bayre la sa yaram neex. loo jublu mu sotti loo lijjanti nga jot ci mu am beneen boo xam ne wàllu xëcc ay mbooloo la yooyu boo ko defee nit ñi dañ lay wër. Mhm. mu am bayre yoo xam ne dafay ànd bu boobaa moom da nga soxla kaaraange mu am xeneen xeetu bayre yoo buzz wala nga bëgg a siiw ba tey siiw ak bayra dafa bokkul mu am loo xam ne wàllu xëcc la ci place nga koy def nit ñi di ñëw di jënd bu dee mm. ngay jaay mm-hmm. mu am ci loo xamante ni wàllu maanaam tamit bayra bukki ba ci bayre woyaa yooyu boo xam ne wàllu noob wàllu cofeel mm. wàllu bëgg soxna mm-hmm. yooyu moo ko yëkkati waaw mu am yeneen xeetu bayre ba tey bëri na ay façon day bayre yi mën naa cee dem gën a xuus mm-hmm. mu am ci yoo xamante ni comme niñ ko waxee mm-hmm. wàllu njaay nga yor ko bëgg mu jar kom wàllu oto wala daamar wala wàllu suuf loolu am na ci secret mën naa fi baaxe tur bi li yastaxlifannahum la dañ koy remplacer am nuñ koy doxalee bu soobee yàlla loolu day soppeeku xaalis nekk xaalis nit a weccoo la xaalis ci lu lew. ci lu dagan lay tam jërëjëf ajam ci ponk bi may jeexale nag ponk bu bu am njariñ la ndax saa su nekk nit ñi dañ naan il faut nga del si ci di ma koy sampal doo am na lu la ci yàlla dénk yow mu di néew kàttan ñen ñi di ko naan nguur a mais xam nga ba tey bayre tubaab bi mu ngi fii moom bayre la boo xam ni ñeneen bitim réew moo ko tax a jóg. Mm-hmm. incha allah kooku moom boo ko amee da nga am bayre ci biir tubaab bi bu baax a baax a baax. Mm-hmm. wàllu néew kàttan bi nag moom nan la waxee kooku am na lu la ciy jox. Mm-hmm. waxuma la Ndella Madior wala keneen de waaye borom mooy daw. ka nga xam ne naa la chaque jour mën ngeen a ànd ci néegu say moo lay daw ndax la yàlla dëxëñ ci yow. ñu liggéeyal la ko ci secret ngóora kattan moom bu soobee yàlla lañ la ciy digal bës bu ko soxlaa jox ko du wàññi sa gudd fan mhm. du wàññi sa wërgu yaram mhm. yàlla moo la bind def la góor nga mën a denc ñeenti soxna mhm. góor yaa ngi fi mag yoo xam ne ëpp nañu soixante-dix ans lañu mënoon démb ba tey moom lañ man bu buñ ko rawul bokk waaw ndax màgg ak expérience dafa am tamit ak gàllaaj jërëjëf waaw loolu am aja kon ñu bala nga tàggatoo ba jëme jamono incha allah tàggatoo rek mm-hmm. mooy di jërëjëfal ñëpp mm-hmm. aw di dellu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. di tamit uh, muslu ci seytaane di ñaan yàlla musal ñu ci musal mboole jullit wasalaam jërëjëf